cheikh Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides doonoon gànnook sëriñ Mamor moom sëriñ Mourtada Mbacké ci altine ci dëppoo juróom-ñaari fan ci janvier 2019 ki nga xam ne moom moo di sëriñ bi bi muy ñëw mbooleem ndongo yi nga xam ne dañoo nekkee ci école sëriñ Mourtada yi ñoom ñoo ko ak yiir ak ay kilifa moom sëriñ Mountakha Mbacké Bachir bi muy ñëw nag benn oto sax rek la àndal bi mu agsee ci kër gi ki nga xam ne moo di Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Mourtada moom moo ko dalal ñëw ziare ko nuyu ànd ak moom dugg ci biir ginnaaw bi nag Serigne Mamor ziare na Serigne bi waaye it gën a yeesalaat digganteem ak Serigne Mountakha Mbacke bu ma waxee coono bi nag waxuma coono booy sonn ndax bi ma sëñ Basiiru waxee ne da ñëw sawaruma woon te loolu bu ma ko waxee mu lu rëy lool waaye li ma ci jublu mooy yëkkati la dañoo defoon nañ ñoo tax kon day metti ci ñun lool waaye gis naa ne li may wax ne foo jëm sëñ Touba nga fay fekk nga fay seet moom nga fay fekk moo tax koo ne damay jëm si ci yow bu dul nit day defe ne moo tax loolu moo tax ma nangu waaye dama ne woon la ngay def moom te jàpp ne am na foo ko teg te xaw ko bu ci ñëw fii rek desee mën nañ ko muñ bàyyee la ko nga toog waaye demal naa sama bopp ba xam ne la lay yëkkati du per li tubaab yi di wax per du temps maanaam dox lu dul noona wala loo xam ne da nga cee bañ a gañe dara doo ko def kon maa ngi lu ci xalaat boobu ma njëkkoon na xalaat waaye maa ngi sant yàlla yi ci delloosi si bi ma delloo si ba mu wóor ma ne li la tax a jóg du maam moor du keneen sëñ Tuubaa ngay xool moom ngay gis xool yi nit boo fa toogee mu fekk la kon moom ngay fekk yàlla na ñëpp a ngi ci nag waa Kër Sëñ Moussa ñëpp a ngi ci taalib yi ñëpp a ngi xale yi tam xam li taxit waxoon nga ma ne nañ ko fi kenn nañ nañ nañ bañ a ñëw waaye nu indiwuñ nit ñi sëñ Touba leen indi te sëñ Touba ah, ñi fi ñëw mooy njaboot gi rek ak ñi la sopp sopp sëñ Touba xale yi ci rax. mooy taale bi ñi nga xam ñooy étudiants yi nga xam ne université Cheikh Ahmadou ma ba mu ubbi woon gouvernement bi indi tay étudiants yoo xam ne kër gu nekk nga ci biir waaye liñ doon doon ay gone di fi jàng te état indi leen fii xàmmee wuñ kenn lépp yàlla ak yoon yonent bi sëñ Tuubaa dara réewuñu jaxasoowuñu amuñu lenn lu ñuy def lu dul nekk ci li ñu wara a nekk loolu nag moo taxoon ñu ni nga ñëw ñaanal leen li ci des mooy yenn jàngukaay yi ci dëkk bi ndax dëkk bi ak li ko wër rek lu mat fukki junniy eh, dong ak benn ñu waxoon naa la daaw ne la li fi nekk daaw juróom-ñett fukki junni lay doon ak yu topp waaye ñi nekk ci gox bii kese mooy fukki junni nangam léegi nag am na ci ñaar ñu fi ñëw mu jàngukaay bi ñu tudd sëñ Mbàkke ak bi ñu tudd Soxna May ak ñenn ñi ak li ci université loolu rek ñoo ñëw nga ñaanal leen ah ñuy tamit liñ la doon wax rek fas nañu yéene day du ñu wax mukk ca kaw wax ci suuf du ñu xool mukkit ca kaw xoolaat ci suuf du ñu jëf mukkit ca kaw jëf ci biir suuf lu dul dara loolu moom booy moom nga nga xam ko loolu nag li tax ñu di ko waxee fii du wanu du ngóora waaye dañoo xam ne wax bay baax na ndax li la yitteel ku la xam damay wax na yow doo xool ci nit lu dul lu baax egg naa sax ne nit bu solee bu mu ñuul kaalaw kaalaw bu weex donte bu lépp dafa ñuul yow boo ñëwee kaalag rek ngay xool loolu nag mett na loolu nag ci ku mel ku mel na yow waaye nag noppali na loolu it kon nag yàlla na yàlla defal lépp lu lépp loo xam ne moom nga soxla ci àdduna te bàyyi la fi nag euh, loolu jàngukaay loolu rek la foofu rek la toll bi nga ubbi woon moo nekk ci Darou Alim nañ koy jàngale mburum diine ndax ni ñu séddale woon mooy fii njàngum diine lañ ci mu diine moom mooy kuréel bi fi nekk muy faculté bi fi nekk dañ fa jàng alxadaraat mooy civilisation yi ak insaan yi maanaam humanité dañ ñett yoo xam ne dañoo jege mooy diine moo ëmb lépp li ci des mooy ñi nga xam ne moo nekk Dakar ak Bambey ak fële ca dañ fay jàngale yeneen yoo xam ne ay ay yëpp liñ tudde xamul diine te jàpp ne am na lu ñuy tudde njàngum diine njàngum àllaaxira loolu moom la wax ne kon ñun li ñu jàpp mooy diine moo ëmb lépp lu am luy xam-xam suñu borom moo ko moo ko sàkk kon li nit di jàng ngir di ci jëfandikoo moo xam médecine la moo xam ingénieur la moo xam lu mën di doon ci métier nit dafa bokk ci xam-xam bi suñu borom defal nit mu de ko jàng loolu tax ñu seetlu ko am na am na Ndakaaru am na Bambey am na itamit euh, fii ci ci Touba ci ci loolu ci njàng yooyu am na itam bu ñuy wax la fexe su ko ci ndar waxoon naa la fi nag àgg na doon nañ ko ubbi sax ci fan yële waxuma la ko ndax li tax du ma la wax yenn yi xam sa xër tey jàpp nañ. fu ñu nekk rek yow lañ fa nekk loolu la duñ la sonal ci dara te loolu itam ñun ñoo jël suñu bonne responsabilité boobu koo mën a yebal ku dul suñuy mag bi suñuy kilifa pour nu fekk ci xew-xew buñ fa nekkee noo la fay teewal ku fa ñëwit boo ko fa yebalee nit te demewul noonu tamit ci suñu ginnaaw rek lañ nekk ndax dañ jàpp ne te jiibuwulu jiyéen loolu ñu dina ko xamal lañ la waxoo nit mooy loolu la lépp lu ñu def wala ñu di ko wax wala ñu di ko def lépp rek weesuwul rek mu jëm ci lu jàpp ne rek wax naa mën a defar waxoon naa la itam ne duñ la ci diisoo ndax lu lay noppal rek la ndax am na foo toll foo xam ne lu bari da nga ko xam lool gën nu koo xam sax waaye nag mayu la mayuñu la nga egg ci yenn yi kon nag am na ci loo xam ne tamit ñi ngi koy gis loolu Mbàkke mooy li nga xam ne li ci desit ah, lii daaw ma ko def génne dara ci biiru nit wante du njësal Euh, liggéey bi ngay def laa ne lii man dama ko mas a def ci sëñ Abdou Lahad yàgg na mooy jàngukaay bii ngay daare ji ngay àggale sëñ Abdou Lahad ba mu ko woo booba ndaw laa awma ma dara itam waaye dama wut fukki junni dem fekk ko ca mbaar ma ca këram nit ñi bari lool ma dikk defe na du ma xàmme sax nga baal ma wax ji waaye nag daf ca baax di wax leen léegi bi ma ñëwee bi ma ko nuyoo defew na sax xàmme mu ma daal di toog nes tuuti nag mu ne naa jàll ci biir bi ma jàllee ci biir yëfi gone rek ma ne ndax na tey de bu wutul fi laay yemb toog tuuti mu fekk ma fa ma yëkkati fukki junni yi ne ko sëñ bi yaa santaane liggéey te aw ma te itam ab taalibe laa kon aw may mbokki taalibe laa am taalibe mbokki taalibe laa am moo tax sëñuma leen a laaj waaye nag sañ naa sama ñaari dërëm yi ma jox la ko waaye ba ma ko ko joxee ci enveloppe bi ma ko laxasoon ni mu tuutee daf ko teqar ci dugg dugal ko ci poosam kon ma xam ne yéen la ngeen di la ngeen di yittewoo waaye léegi ngeen mooy xolu nit loolu nag moo jox moo tax ma lii ma defe ko ci kanam nit ñi li tax ma defe ko ci kanam nit ñi itam buñ gisal wax naa ko ma yëfa waaye damaa bañ neex a dëkkal ne fu ne ña ngi fay wax de di annoncé waaye moom dégguñu ko loolu laay bañ loolu kese laa ci bañ waaye kon ci biir nag balaa dafa jox du dara nag waaye nag damaa bëgg nga xam ne lépp loo digle ñun nag dañoo amul sañ-sañu ab wax naa ne taalibe lañu amuñu sañ-sañu digle digal ab taalibe wala ñu di ko laaj ndax loolu du suñ bokkul du suñ sañ taalibe kon taalibe akub taalibe rek sañu nu ko ne defal nàngam lool rek a tax waaye kon ñëpp la ñuy wax waaye nag sañ nañu nag suñ ñaari dërëm ñu ne am ko néew ñu jox la ko te jox la ko ci loo xam ne suñu suñu sel ci lu wér la kii ñun yàlla na fi yàlla yàggal loolu rek la njaboot gi yëpp ngi nii nag ñëpp ñu ngi lay sant di gërëm ginnaaw kàddu yi sëriñ Mamor moom sëriñ Mourtada yooyu ki nga xam ne moo di xalif général des Mourides sëriñ taxa Mbacké Bachir yëkkati na fa moom it ay kàddu. Eh, eh, rafetlu ko lool ndax kàddu yi mat na sëkk eh, dégg nañ ni nga ko waxe bu baax a baax maa ngi gën a sant bu baax ndax li ma tax a jóg. ginnaaw xam nga ko nangul nga ma ko loolu moom moom rek moo doon sama àll eh, eh, jóg gii ma jóg eh, jëm si ci yow dafiy seet si jëmmi Cheikh Mourtada mu jëmmi Serigne Touba loolu rek moo ma fi indi dama ko nasuroon lu jiitu lii lépp bëggoon at mu jot waa kër Serigne Touba ñi fi nekk ka nekk ca kër ga te te nekk ca bopp ba amoon naa nisari at mu jot mu jóg jox ay jéego ñëw ngir jëmmi eh, kam fa nekkal eh, mu jëmmi Sëriñ Tuubaa eh, ma siyaare ko jéego yooyu muy jéego sëriñ yoo xam ne sëriñ bi rekk a tax loolu la ma ci bëgg woo ko nangul rek jéego yooyu Mbàkke ginnaaw nangul nga ma ko rek man sama aju faju na moom rek loolu rek moo fi andi euh, sañ naa cee dolli nag di la kañ bu baax. di la kañ bu baax taxawaay xam naa taxawaay bu baax a baax a baax am nga ci ko yitte ju ma sëkk lu sotti rek yitte ko sotti yitte ju ma sëkk la joo xam ne dara jot ci xam xam xam xam naa ko bu baax xam naa li ma xam naa taxawaay xam naa li ma taxawaay kon mag yi amuma dara lu ma lay lu sant la gërëm la. kañ la bu baax baax a baax ñaanal la itam. amiin yàlla suñu borom la kattan. kattan ngoo xam ne wér ci jiitu. waaw wér ci jiitu. amiin moom gën laa gàtt na tawfeex Sëriñ Tuubaa. ba li kanam lépp gën a yomb gën a gën a gën a moom bàyyi la fi lu yàgg. ba nga gën a mën nag ci liggéey bi nga nekk. borom liggéey bi sëriñ bi. kattanam la ak ngërëm loolu rek mooy tax mooy mooy jéego jéego yi mooy kàddu yi jërëjëf maa ngi maa ngi sant sama euh, sama sama sang si la euh, di suñuy rakk euh, ci ci maa ngi leen sant bu baax sa taxawaay xamoon naa seen taxawaay bu yàgg waaye gën naa ko gisaat ci fii sa wet ci di sant mboolem bokki tàll bi di sant itam alhamdulilah gone yi li ñuy tuuti tuuti leen sëriñ bi seeral loolu rek mooy li ci ci yéen maa ngi leen sant bu baax di leen ñaanal bon xam leen. amiin te leen. guddal seen fan. te gën leen gën leen ma gën leen gën may taw sëriñ. gën leen a. suñu moom gën leen a gàtt nag taw fii leen ci may ubbi ko. léegi ci sàkku lépp moom defal leen ko. defal leen ci damal Sëriñ Tuubaa defal ci barke Sëriñ Tuubaa boobu moom leen lépp. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. parce que yàlla na fi ginnaaw bi sëriñ bi ñaanee dugg ci biir gisee ki nga xam ne moomoo moo di sëriñ Mamor moom sëriñ Mortada am nay bernde yu yaatoo yaatu yoo xam ne waajaloon nañ ko fa ci mboolem ñi nga xam ne ñëwoon nañ ci ngan gile